alaikum. ami internautes de Kulanjan TV Dans Akjam, ak ci troisième numéro Edu Digital Edu Digital mon que émission bi nga ne gindi ci je li fake news fake news fausse information ou la bu wérul bëri na li ngay internet xibaar yo xamantene dina ñew daw lu ñu dem ba ci kanam xam xibaar li ko waral moy ñun ne vérifier information bi amna ou wala amul. tey li ma la indil mooy naka ngay def ba ràññee xibaar yi nga xam ne yaa ngi ko gis ci internet ba xam wér na wala wérul yaatal bi léegi léegi lay doon. comme ni ma leen ko waxee léegi mbokk yi fake news nekk na loo xamante mën na jur danger bu rëy ci askan wi nga xamante ne ñu ngi koy dund am na ñoo xamante ne ñu ngi koy def ngir jublu ci manipulation électorale jaxase xelu askan wi. wala sax am nañu fake news dem na ba jur ci dëkk yoo xamante ni nit ñi ngi boddikonte ci wàllu xeen ngir xeex yu mel noonu dafay jaar ñu wan leen ci yan yoon ngeen war a jaar pour mën a vérifier information yi nga xamante ne yéen a koy jot saa su ne li ma lay njëkk conseil mooy nga xool fan la xibaar bi jóge kan moo ko publier loolu nga vérifier date bi nga xamante ne moom lañ ko publier xool ba xam publication bu yàgg la wala publication boo xamante ne nii lu récent la. na nga xool ba xam publication bi nga gis am na yeneen média yoo xamante ni am nañu dayo publier même information bi bu dee information bi am na ay lim wala ay chiffres da ngay jël chiffres yi nga dugal ko ci internet nga xool yan résultat la lay jox. am na xibaar yoo xamante ne mën nga ko jot ci mu nekk ci wàllu image wala vidéo bu dee vidéo bi dinaa si ñëw ci ni mu gën a yaatoo mais tey ni ñuy def mooy dinaa leen wan naka ngay def pour vérifier image boo xamante ne publier nañ ko ci internet nga bëgg a xam bu baax la wala bu baaxul la. léegi léegi penda ñu dem sétani lolou ñëwaat. wala mbokk yi bu fekkee da nga bëgg vérifier image yi nga xamante ne ko gis internet pour xamné baxna wala baxul li ngi ne technique bi ngay def moy recherche d'image inversée manam da ngay xol image bi nga recevoir ba xam méngoo na ak li nga xamantene ni ñu nga am ci internet wala ñeneen publier nañ ko li ngay def moy da ngay dem ci ce play store play store ngi ni nga télécharger application google lens google lens man amna ko ba paré motax euh, duma ko installer légui damay jall directement ci bir application bi ma def ouvrir légui damay jël xol parce que bo xolé google lens amna euh, traduire texte mën nga photo ben texte ba paré demander traduction bi mën nga xool texte pour vérifier ba xam texte bi am na am na yeneen option yoo xamante ni mu ngi si mais tey li ñu gën a yitteel mooy nga xool image bi nga xamante ne yaa ngi ko dugal dëgg la wala du dëgg ñu tànn suñu image image bi ma jël nii tey damay wax ne CAN U20 bi Sénégal mi ngi nekk champion d'Afrique joué guñu final bi Sénégal Gambie la mais joué guñu mais dama def affiche pour dire que ni Sénégal mooy champion d'Afrique damay vérifier information bi ba xam dëgg la wala du dëgg su ma appuyer sur rechercher dina ma dina ma jox correspondance yi boo image bii nii mi ngi jóge ci image boo xamante ne ni CHAN la woon CHAN bi 2022 la Sénégal ak Ouganda bu amoon à 19h photo bi moo ma redirigé ci information yëpp yi nga xamante ne correspondre na ak photo bi ma dugal parfois nit ñi photo yi la ñuy jël modifier monter.

mbok yi li lañ leen indiloon ci seen vidéo bi nga xamante ni moo leen di permettre ngeen vérifier image yeen am ci internet pour xool ba xam baax na wala baaxul outil bi ñu utiliser mooy Google Lens am na yeneen outil yoo xamante ne mën nañ ko utiliser pour mën a vérifier information yi naa la ko defal ci description bi bu dee vidéo bi neex na la ñu ngi lay ñaan nga bës jëm te abonné Penda moo nekkoon ci caméra bi jaaral ci réalisation bi ñu ngi leen di jox dig daje ayu bés bii di ñëw ci beneen numéro Edu Digital Kulanjan TV xibaar yu am njëriñ